parlant du du du troisième mandat yow. Euh, am na loo xam ne nag dama la koy reconnaître ci côté justice moom ba nga nekkee ci biir nangu nga lu bari mais ci côté troisième mandat bi euh, mosoo ci ànd wax nga ko ur bi or bi euh, et d'ailleurs chaque jour ma tooñ ma ne je pas comment Aminata Touré a fait pour ne pas. pour na pas savoir que du nekk président assemblée national xaw ma xaw sa génie politique fan la la jaar boobu comment vous avez fait pour ne pas comprendre que yow duñ la tabb présidente assemblée nationale waaw ouais, mais may mun a parce que dafa ma ko jaralul tout simplement non mais mais comment vous avez fait pour mais, ne mais, pas voir cela mais, mais ce n'est pas question bi du foofu question bi mooy su ma bëggoon nekk président assemblée national xam naa kon li ma war a mooy bañ a nekk urbi en naan lii président Macky Sall bëgg a def troisième mandat waru ko def. ko defoon sax duñ la mais ça c'est pas important mais su ma ko bëggoon a def mais euh, def naa ne ñoom euh, ñu amoon keneen ku jiitee seen liste kon ñu jox ko ko. ah si amoon nañu. mais fale ay ca bisimilah lu tax ñu dox doon ko ko ñoom ñoom sama ginnaaw lañ ne woon ah. tous. non président Macky Sall moo xëy. génne sa tur. Ah, am nañu am nañu bëggoon jiite liste bi Macky Sall moo la ma mën mënuñu ko mu xam ko. Ah. la ma mën ci politique mënuñu ko mu jox ma ko c'est aussi simple c'est pas compliqué tu le sais je le sais lui il le sait mu may déglu c'est ça c'est Euh, su ma bëggoon assemblée nationale. peut-être que kon li tubaab li li wolof naan sukk du la tere yóbbu say oom. su ma fa nekkoon naan waaw monsieur le président lii c'est c'est votre deuxième c'est votre naka la ñu koy waxee sax ñoom. deuxième non votre premier quinquennat nangam nangam wax yooyu nga xam ne tegawul ci dara. mais mais mais affaire ba ñàkkul bu Gunjoon jiite na liste bi il a eu 125 députés. et il a brillamment remporté les élections mënoon nañu am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jiite nañ ko xëy na Macky Sall moo jàppoon ne rek. ah parce que juste voilà juste son position nami rek mu jox ma ko. Ah. mais xam na ne j'étais sa meilleure tête de liste xam na ko ñoom ñëpp xam nañu loolu. j'étais sa meilleure tête de liste am xëy na. foog nga ne du ma sa tax ma ñëw toog jàkkaarloog Sénégalais yi jàkkaarloog samay doom jàkkaarloog yow. naan leen non président war naa ma def troisième mandat jamais. mais foog nga ne ci contexte bi ñu demee élection ngeen am 82 députés euh, yow da nga ne bu nekkoon keneen mbir bi mënoon naa yées. loolu boo ko gisee moom mi ma tàmpoon nga laaj ko ko bien sûr j'étais la meilleure tête de liste qu'il pouvait avoir il me l'a donné et j'ai fait un excellent travail dans le contexte où je l'ai fait ni oui ni non booba doon bi gën a métti <laughs> voilà Euh, mais loolu mu ngi sama ginnaaw loolu ma ngi sama ginnaaw d'autant plus que moom ci boppam non seulement euh, voilà nanguwul ma nekk sax député non inscrit génne na ma assemblée mais loolu amatul amul solo. parce que jéggi nañ loolu boo génnee parti bi tamit da ngay perte sa mandat ça c'est c'est une loi a à l'Assemblée nationale. ah bon waaw. dama déposé la lettre ah? ne bàyyi naa parti bi. non pas bàyyi mais am nga sa mouvement. non non non mais avant loolu. xam nga da nga da nga démissionné. non démissionné du ma soxna si. Ah, loo def démissionné wu ma justement ah loo ma bindu ma lettre bindu ma dara dama yor sama position. ah ñoom fu ñu jëlee fu ñu jëlee. moo bi ñu basé wu. nee amul lettre non amul lettre ñoom ñoo amul lettre. ba léegi suñu jonn yàlla tey aw ma notification. ne ko da ngay quitter le le le le groupe mu accepté ñu accepté ma comme. léegi même non inscrit. mais bind nga. non pour être sortir du groupe parlementaire. Ah. ne veut pas dire sortir du parti ou de la coalition. ñu nangu ubbi assemblée ne désormais député Aminata Touré non inscrit lay doon. ñu dawal deux trois mois waaye ba mu commencé indi nag la loi sur les incompatibilités familiales ah foofu nag euh, xam naa may laal point bu sensible mais point boobu euh, ci suma programme lay nekk. incompatibilité familiale parce que famille ni muy duggee ci affaire état euh, jéggi na dayo et mooy indi problème yu bëri. voilà incompatibilité familiale mais mais man d'ailleurs loi boobu jaaxal na ma xam tamit euh, baax na Sénégal euh, nit ñi dañoo sonn ci immixtion wu famille bi euh, dans la gestion des affaires de de l'État on l'a vécu avec avec avec Wade mm-hmm. et d'ailleurs loolu moo nekkoon le précédent on était un peu on s'est on de ça ñu mm-hmm. ñëw avec Macky Sall aussi il y a une présence accrue de la famille présidentielle dans les affaires de de de l'État waaye mbir mi tamit boo ko xoolee ci feneen tamit euh, am na injustice un peu c'est-à-dire nit ki nga bokk ak euh, njiitu réew waru la tamit wàññi waru la def un sous-citoyen non doo si citoyen parce que loi bi prévoir na ko yow ak sa borom kër mun leen bokk conseil municipal loi bee ko wax waaw yow boo nekkee am na liste yu ñu éliminé pour ça ci local yi ah, ah, très bien yow ak sarak bu ngeen dee magistrat mun leen bokk tribunal bu ngeen nekk wala sa mag ba ci cour des comptes vérificateurs yi dañ parce que loi loi bi sax prévoir na ko rawatina nag président de la république ak gorob président de la république et parce que mooy indi problème bi cas concret mille milliards yi mais du gaa euh, li ma leen ko prédire woon noonu la amee eh, lii du gaa du ngeen gaaw a dégg procureur mu parce que gorob yi aussi est cité dans le rapport muy sëñ Mansour mooy Mansour Mansour Faye <coughs> mais loolu après dootul affaire administrative affaire familiale lay doon donc même pour protéger les présidents de la république bu ñu indee loi yooyu da leen di protéger ñoom seen bopp doo fi nekk nekkati nga dem ñu naan sa goro wuyu sa frère kaay wuyu sa et cetera parce que dina fekk loi bi protéger na la yow protéger na la leen maintenant mun nañ nekk ay conseillers loolu sax lañ la gën a soxla parce que dinañ jàpp nañ ne buñ la bëggee dinañ la jox conseil yu baax je que loolu Euh, day avancer loo suñu démocratie et c'est une bonne chose sax pour président pour la république ba toog noonu laa ko noonu laa ko gisee donc réforme yi bëri na yoo xam ne yii war nañ ko def j'espère que dinañ wax affaire programme parce que c'est important waaw waaw mais mais mais dafa am mbir moo xam ne bëgg naa nga tontu ci mhm. euh, dama invité Farba Ngom et j'ai eu beaucoup de discussions euh, avec des gens du avec des membres du parti présidentiel à l'époque bi bi bi bi affaire yi amee biñ la tegul Assemblée nationale ñu ne Euh, bi ñu bi ngeen nekkee séminaire Saly yow bokk nga ci ñuy doon soññ député yi ngir ñu signer les les les procurations là et puis yow jël nga parole nga ne euh, lu président décidé yow jox nga ko carte blanche lu président décidé euh, ànd nga ci. gis nga yooyu dama dul sax tontooti yooyu question parce que dafa nekk tellement derrière moi c'est-à-dire fi mu ne nii xam nga li ma intéressé. mooy ma wax ak sénégalais yi waxu programme. pour moi ce n'est ça n'a aucune espèce d'importance amul benn benn benn importance ci sama wàllu bopp parce que jàll jéggi naa ko yàgg na jéggi naa ko pare pare naa ci bu yàgg bañ naa ko ba nekkatuma sax assemblée nationale li nga xam ne daal moo am mooy président Macky Sall ci suma ànd ak moom la ma xamoon la ma mënoon euh, la ma mënoon sax def naa ko ak engagement lépp loo xam ne lii compagnon doon na ko defal ki nga àndal def naa ko. ba ñu àgg foo xam ne fii foofa moo doon divergence bi li am am. man ma jàll ci leneen.